jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax tey nag ñoo ngi fi ci syndicat seet si ki nga xamante ni ndaanaan la champion la bi mu mujjee bëre yàggul waaye yàlla dogal na am na ci ndam ñu ko wax tampon xale la boo xamante ni nii moo ngi nekk kii daan euh, mu ne xale boo xamante xale bu jar a bàyyi xel na ndax euh, moo ngi def ay performance am ci làmb tey nag moo ñëw seet si ko gannaaw jóge na ci combat yàlla dogal na am na am na ci ndam te ñoo seet si ko bëgg waxtaan ak moom ci combat bi préparation bi wàccaay li après combat bi naka lay dundee ak job bi ndax mbër ak liggéey ñu ci bay mbokk yi dañuy ne dañuy liggéey dañuy dañuy bëre mais duñ liggéey mais moom dañ ko gis muy muy bëre boole kook liggéey ba tax na loolu yëpp bëgg nañ ci waxtaan ak moom ak li li ne ci kanamam lan la xanaa ñu bàyyi ko après mu nuyoo ñu waxtaan bi. Tampon nuyu naa la. Ousseyn lay fay. ci loo ne. yàlla bu baax a baax naka Sandika. waay nii rek baay. mais félicitations. waay merci waay. Euh, ñu gis la nga jël booy remarque ñu gis la boobaak léegi bi nga bëree yàggoon na ñu dégg la bëreetuloo nga jël booy remarque la moo dugal ci booy remarque. waaw booy remarque li ma si dugaloon comme comme mbër la man mbër laa. yaakaar naa mbër moom bëre rek mooy métier mhm. pour man avance bu ñëw rek da kaa war a encaisser quoi bëree ji ko. Mhm. mais bi ngay jël ba remarque xamoon nga ko ndax dañoo gis yéen ñaar seen taay xawoon na tolloo mais combat bi dafa xawoon na yàgg bi nga ko jël ko. non booy ko jël dëgg-dëgg xaw ma ko bu baax a baax a baax doon naa dégg turam rek mais xaw ma ko quoi. Mhm. miinu ma ko woon. mais lan moo waral combat bi yàggoon. combat bi li waral yàggul dama damaa entraîné rek te xam nga it nag des fois nit ay nit mën nañoo tolloo ni yaram mais duñ tolloo doole quoi xam nga loolu da ciy feeñ sawaay ñoo xawoon a tolloo ni boo gisee wala mu ëpp ma tuuti mais man leer na man maa doole yaa doole maa doole gis nga bi ma ko jàppee moo tax taxawul mais lan moo tax combat bi yàggoon ngeen jàppante taxaw ñu jàppante taxaw laaj calcul gis nga mbër bu la boolee moom te xamoo lan mooy ay qualité am xamoo lu mënee xamoo lu mënee xamoo lu mënewul lii yoon mooy da ngay taxaw xaar ko déglu ko maanaam boo dégloo boo xam lu mu indi après nga door a mën a def li nga xam naa bu ñu dawalee tuuti kàggu dina ma andilaate combat bi ndax combat bi yàgg na mais jëli bi dafa rafet ndax nga ko daanee non dañoo dañoo daw jàppante mu téye sama loxo nii quoi. mu jàpp sama loxo moo xaaj di dóor. mu jooloo man daw song ma ma bal ko. mu dabal ko ay naax braqué ko quoi dama ko braqué. dama ko braqué mu jaaxaan mu jaaxaan waaw. nga daan ko jël bu waa waaw jël bu rëy laa ko daan waaw. mais bi nga jugee ci loolu boobaa ak léegi. Mm-hmm. est que ñoo ngi dox sa combat. waa ñu ngi may wax ay combat nag mais sotteegul quoi. sotteegul waaw tey ji rek moo ci mujj sax ñu may wax combat mais xam naa ne. taxawagul doonagul lu taxaw daal. ok ci yow la wala ci ñoom la. donc ci ci ci gars yi wax la quoi du si man de. ah du ci yow waaw du ci man. ñaata combat ñaata combat nga defagum. def naa cinq combat. ñaata victoire. quatre victoire benn match nul. benn match nul waaw. ah loolu dafa mel ni palmarès su baax. waaw palmarès bu baax la de mais fi nii fi mu toll nii bu bu bu loolu bu loolu weesoo ñan ñan ñoo xamante nii yow ak ñoom boo xoolee da nga xam ne ñii combat bu jaadu la. bari nañ fi de adversaire yi bari nañ fi de waaye gars yi boo leen tuddee tam mooy loolu tam. waaw non même bëgg ndaw dinañ naa lii wala sama xel a ngi ci lii. ndax même ñi nga soxla naa ko Mathieu Mathieu Pereira de Guiers na. bëgg koo mun naa faa bëree sans combat chaque jour ma fay amee adversaire. Mathieu Mathieu prix bi lay de. non Mathieu ndaama la da nga koy ci bopp bi boo ko rëkkee day daw <laughs> tudd fii non Mathieu man Mathieu laa soxla sant a soxla sax ndax ndaama la da nga koy dóor ci bab mu daw mu yaa ma gën a xam Mathieu ndaama la waaye ndaama lu bëri affaire la de non affaire man jaaxulum parce que daan naa ay ndaama yu ko gën a bëri affaire foofu hmm. waaw mook laay soppe ku gën a bëri affaire laay soppe ndaama la comme moom ay ku laa ci bab mu jébulu ma waaw ma jaarale fu ma jaarale gaa yaakaar nga ne moom daal lool lool lool war mën a def lool day yomb sax combat mooy gën a yomb ko booy remarque quoi. Mathieu lay seetaan. non loolu koy amul ma Mathieu yow laay waxal lekkal avance bi ndaama nga ci digg bopp laa lay dëkk nga daw jébalu. <laughs> mais mais mais mais mais làmb ji làmb ji ak liggéey bi naka naka naka naka nga koy defee. parce que ñu gis da nga war a xëy dem entraînement wala xëy liggéey naka ngay naka ngay ñaar. non làmb ji ak jafewul lool. man ni ma ko jàppee man damay xëy comme ni bu làmb taxawee. Mhm. sama liggéey damay wut koo xam ne dina ma fi mën a remplacer su wutee bagage bàyyi ko fi rek. man damay mën a dem doxali samay soxla quoi noonu laa koy doxalee mais bu combat passé moom damay def benn séance par jour wala deux séances par jour xam nga boo dee def trois séances par jour doo doo a jaay quoi nga koy wut bagage rek bàyyi fa nit mu di la jaayal yaa ma gën a xam man noonu laay doxalee. ok waaw mais kaw ñu gis nga ñëw euh, di bëre jara di bëre préparation bi naka la demee woon. waaw préparation bu jara ñoo bokk préparé man ak moom ñoo doon ànd di préparé lépp ñoo ko defandoo. waaw moom itam xam nga rek làmb moo ñëw deme noonu tamit ma di ko ñaanal su amaatee combat yàlla suñu borom may ko la mun naa la wax sax li mu daj man coono dajuma ko waaw parce que combat dafa yàgg parce que mën na un an et demi moo tax ok mais fi mu toll nii fi mu toll nii làmb yan ko la war a mën a taxawee pour mu a jëm kanam ndax gis nañ xale yi yéen seen combat dafay xaw a métti te dafay yàgg boo bëree tey boo amul chance di nga toogaat lu yàgg doo bëree seen combat nag làmb naka la war a mën a taxawee pour làmb mën a dox waaw ah, làmb ji man pour man bu doxul rek ci promoteurs yi organisé ak CNG foofu la affaire bi tagee quoi parce que làmb boo dee xool mbëri ndaw yi fayuñ ne dara te ñooy bëree combat yi métti yi ñooy mbooloo ci stade yi soo tëggoon benn grand combat bee kese fay leen ay millions doo fa gis nit ñu bëri mbooloo yi dem ci stade yi mbëri ñoo koy mbëri ndaw la mbëri bu neex bi mbëri ndaw yi la gars yi duñ leen fay xam nga loolu war nañ koo xam nga ne benn comme benn nga jël benn cent millions jox ko benn mbër mbër yu ndaw yi nga leen di fay ay cent mille francs cent cinquante xam neexul quoi mm-hmm. daal pour man di leen joxaat gëdd mbër yu ndaw yi quoi gëdd bi war moom lañ leen joxul mais keroog dama ñëw stade nga daan waa syndicat yi di wane seen bopp wane mm-hmm. yi fu ne lay di daanu ci bi mm-hmm. lan la bi ngeen dem da ngeen yóbbaale woon ndam li tax na gars jël madd yi yóbbaale wala nu mu demee noonu saganoo yi xam nañ seen mbër quoi benn combat moom pour pour mu jaaxal ñu du yomb parce que li ñuy daj ci àll bi mën naa ne moo gën a metti fii moo tax ñoom benn. combat ba léegi yaa ngi dem ci àll bi di bëre. ba léegi nii maa ngi bëre suba suba kii samedi wala dimanche boo ñëwee adresse ma da ma fay fekk de. Uh-huh. wallaahi man ba ma bëree ba suba bu làmb man damay dem bëree ji man loolu laa xam ñoom loolu lañ xamoon quoi xam nañ seen mbër moo tax yaa ma gën a xam xam nañ ndam day ñëw syndicat ak ay liggéeykat ñoo fi nekk ñoom itam yaa ma gën a xam bu làmb amee ñoom ñëpp dañuy sañse ñoom moom bokk ñëw yeneen supporter yi quoi ay kilifa lañ ñooy ñëw di ñu supporter waaw dañuy ñëw sañse lu rafet toog supporter seen mbër daan ñu dem ñibbi. Mhm. loolu lañ xam quoi. soo amoon la wax supporter lan lay doon. supporter yi xanaa di gën a di am contentement ci ñoom bu baax a baax parce que jour boobu sax man damaa mujj yéemu quoi. ba dëgg billet yi ñu joxoon dañ koo ñuy dem stade ñu bari foofu lañ jëndee ñu billet waaw kontaan ci ñoom daal xanaa di ñaan aussi bu yàlla defaatee beneen combat ñu defee comme noonu ñuy dem ñu ñëw def li ñu war quoi mais wax dëgg ñu ngi may taxaw moom Sénégal moom aw ma seen fay aw ma seen fay ku ci mel ne Mbaye Sathiès ñoom Alaaji Fay sama grand ñoom Bourou Thiaski ñoom mbay Ngom su ma limee damay jóom musaa Cheikh Diop gars yi daal dañoo bëri moom wax dëgg yàlla dañ cee taxaw carrément jaay billets yi ba mu jeex tàkk jaay tisar yi sonn ci affaire yi sama dërëm mën naa la dugul foofu ñoom ñoo jël seen alal yëpp financé ko foofu noonu man ba dem bëre ji rek lañ ma sax doon moo tax aw ma seen fay daal syndicat moom vraiment aw seen fay ñoom ñëpp kontaan naa si ñoom trop ku ci mel sama doomu nday aussi moom tam na si combat bi. Mhm. ñi si jàpp ñëpp daal dañoo bëri waaw tey ñu seet si seen mbër muy tampon. Mhm. ñëw fekk si ko fii lan nga ñu wax ci moom. waaw def ngeen loo xam ne vraiment geste bu rafet la ndax euh, ñun tampon mooy suñu roi des arènes. Mhm. tampon ñun moom lañ am. te it vraiment na respect mbër la daal champion la daal xëy na. am na lu ngeen di jot a xam mais ci kanam ngeen di gën a comprendre lépp daal. mais keroog mu gis ñu gis mu ñëw stade yéen ñëpp ngeen topp ko ànd ak moom gunge ko seen diggante yéen ak moom ban confiance ngeen am ci moom ba keroog ngeen ñëw àndaale mardi fruit mu daan ngeen sànni ko stade bi wane ne syndicat lañ jógee te mbiru syndicat la ñu andi. waaw bon loolu ñun du mbetteel si ñun ñun dañoo jàpp ne amaguñ combat te bis bu ñu amee combat di ngeen xam ne am nañ combat. amaguñ leen combat amaguñ non amaguñ combat bis bu ñu amee combat di ngeen xam ne am nañ combat ñun xam na leen yor. Hmm. du dañ koo topp mbapat ba andi ko aaree. fi doon lan mooy lan mooy am combat bi yéen ak ñan. waaw lan mooy am combat bi mooy ñu jox ko ay moromam. Hmm. ñan ñoo ay moromam. non moom xam na ko. Ah. yow xam nga ñu ngi ko war a jox tey boo ko doon jox yow loolu du ma la ko wax. xam nga ñeen nga war a jox tampo. Mhm. Ah, maa ngi kontaan ci bu baax. no fii la war a góor. jaajëf ñaar rek sir bi nag vraiment kontaan nañ ca kaw ca kanam rek. incha allah ndax wasaare moom ñëpp la fi nekkal moom. daal. waaw di ñaan champion bi nag. incha allah na ko gars yi geesuwaat. jox koy moromam ñu bëre. am na mboolo mën na bëre ndaw la liñ soxla ci mbër lépp daal mu ci moom di ko ñaan daal macha allah. jaajëf ñaan yéen mu dem mbool di ko def émission tele ak moom daal. incha allah merci beaucoup. Mbaye nuyu naa la. waaw maa lay ziar bër. ci ngi sant bu baax ñëw seet seen mbër muy tampon lan nga ñuy wax ci moom. waa tampon tampon champion la champion la mu ngi respecté yan traitement am. Hmm. mu ngi entraîné di teel a tëdd respecté na ñum nekkal wax dëgg kenn xamewu ko ay yenn yi waaw en tout cas respecté na entraînement am daal waaw su jógee ci entraînement mu ngi ci liggéey ndax dañ ne mbër soo bëreewu di jàppal ci beneen métier mhm. waaw lan nga koy lan nga koy ñaax moom waaw li ma koy ñaax daal mooy mu yokk entraînement am mhm. gën ginnaaw làmb da ko def métier mu gën a fonk affaire yi daal waaw gën a fonk entraînement yi daal. te xam na làmb nga ci kanamam. doy door a làmb nga ci door a commencé. ndaw la waaw. su làmb amee nii ñuy dem. waaw di bàkku xam di dëkkante foofu daal. ndax combat yi bari ndax bu ma sañoon nii ba nii combat taxawaat na waaw ndax neex naa àndal mooy neex a faral dimaas daal. mbaalu waaw mooy neex a faral dimanche ndax kere dañoo teel libéré. waaw loolu moom waaw kere dañoo teel a libéré. kontaan naa ci yow baax waaw Mbaye ziar naa la. waaw ah, fay naa la. ci loo ne. maa ngi ci jàmm gëj naa laa gis ba yaa ngi ci ah, jàmm. naka syndicat. syndicat ngi nii rek. Euh, tey ñëwoon seet si seen mbër muy ja muy muy lan nga ñuy wax ci tampon. tampon de nit ku baax la. Mm-hmm. ku baax la ku gëm li muy def. nit koo xam ne xeebul kenn. Mm-hmm. bilaay walaay tampon mi boo amee combat. wala buñ ko waxee wax combat la ma ñëw wax si man si man xale bu toll ni man balaa bala ma jël avance bi dama koy wax billaahi ku baax la mbër kaamil la mais gannaaw am mi tey bu la waxoon ñaata drapeau la doo ko gaaw. waaw loolu moom foog naa ko ci wéwu béy. waaw naa ci mais fi mu toll nii comme que yow moom amateur nga su ma la doon su ma la doon ma ñaari adversaire yu tampon yéen ñaar nga may limal. non tampon bëri na ñu war a bëri ci làmb ji waaw. kon fi mu toll daal yéen da ngeen pare ku ñëw ngeen. pare waaw Tambon moom mën naa bëre ku nekk ci làmb yi. Tambon yemal. <laughs> moom Issa Pouye combat la. waaw bàyyi ma Issa Pouye Issa Pouye daan ko fi rek ngeen bëgg koo def ma. yàlla xam na ne combat la. kii moo gën a mën di ko. ma ne su ñëwee lu li ko def. waa yem ci match mii ngay wax nii am mbaal laa koy gàcc de xam nga sa waay la koo kor moom uppercut la ko dóor man nag laaw laa koy dóor <laughs> comme que ñemewul kuu koy nañu jox suñu chance ñun xale yi yaa ma gën a xam li nga a génne làmb ji ah non na xam nga yaa ma gën a xam la woon xaw ma ba léegi ñu ngi ci làmb ji loolu daa bëri ñoom ay pa lañ fi ñu doon war a may xale yi seen chance waaw mooy yoon baax na léegi sa waay mën naa woote ñu tàggatoo <laughs> hmm? woote ñu tàggatoo waaw maa woo ñi koy gars yëpp ñu jàppaloo Tampo Ndaw mu dugg si làmb ji ñoom ñëpp ñu jàppale ko waa Sandika jóg waa Sandika moom Tampo moom bëgg ko gëm nañ ko. ñu jàppalante bëggante suñu bopp bëggante suñu biir ñu ñëpp Tampo Ndaw champion la. ñu jox ko ci gars yi nag. Tampo tiituñ ko kenn yàlla xam na ko mbër mu ñëwee entraînement la mu am kàttan mën na bëre ñime na. Tampo na dugg ci combat am ay làmbam amul benn làmbam bu yomb. non jaar naa la. maa lay fay. tey ñëw seet seen bër soo amoon loo ñuy wax ci moom lan lay doon. li ma leen di wax ci moom. ah. yéen daa mel ni xëy na bu ma jaawalee daa mel ni ñëw nga fi. waaw. waxtaan nañ ci kii may hmm. boone la. bañ doonee boobu léegi parce que ñooy ànd. Hmm. maa ko yow njëkk a ci la bu may boone la. ci koy comme kii tournoi lii. Hmm. parce que maa ko njëkk a kon xam nga ne kooku xam naa ko bu baax bu baax a baax waaw ne ci moom moom wax dëggam la man kenn du ma ko xam naa ko te itam comme li ma la waxoon kera rek aw ma benn mbër ma nga xamee ne maa ngi ko ci ñaar wala leneen ko jox moom man parce que moom balaa moo jël dinaan ma betoo xoolal que combat bu mu jël man maa ko jël kon xam nga ne kooku moom du ko ñuy làmb kon teel teel mi ko ajal mi ko bu baax kon fi mu toll nii soo ma doon wax ay adversaire ñan nga may limal parce que dégg naa léegi mu laaj fi Mathieu. Mathieu loolu combat la combat dàqu ko. Mathieu tampon. dugg na géej waaye am fan ndax eh. bëgg faa génnaat. aussi man xam nga ban combat laa gën a soxla. déedéet. moom ak ndigal. ndigal géej waaye. ndigal Balla Gaye boobu combat laa gën a soxla mook Mathieu. Hmm. leer laa lay tegal. tey ngeen bañ a dugg ci ndigal ndigal fi fanaanoo de. kii xale bu ndaw la di entraîné mën na li muy def. te kenn du amul fit ku mu mënta daan ci lam ji amul leer laa lay wax. Hmm. waaw. baax na kontaan naa ci yow. <laughs> maa <laughs> bu nuyu naa la. waaw fee ci loone maa ngi sant yàlla a baax xanaa yàpp nga lekk ngay xogaliku nii. non yàpp non non. <laughs> Ah. mais tey ñëw seet si tampon lan nga ñu wax ci tampon. waa tampon li ma leen mën a wax si moom bari na. Hmm. fii tampon presque suñu loxo la yaroo xale bu ndaw la. Hmm. am na yar joxe na yar bi. waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu boroom. nga mm-hmm. waaye am si làmb rek mu am ko ci làmb ndax xale bu yarul waaw loolu moom nañ boo amoon loo koy ñaax lan lay doon nga yokk ko. waaw li ma koy ñaax mooy yokk entraînement yi rek ndax ñeme na ko te xam na ci yoon bi kon loolu lañ koy ñaax làmb moom entraînement la gën a góorgóorlu ci entraînement yi rek moom lañ koy ñaax mm-hmm. waaw. kontaan naa ci yow tampon jëlal dégg nga gars yi li ñu wax yëpp ku ci nekk wax na yéenam wax na li ne ci xolam. Mm-hmm. boo ko déggee nga toog xalaataat lan la lay def. non daf may gën a yokk jom rek lépp lu ma doon def benn mais yaakaar naa ko def ñaar sans quoi. may gën a yokk jom parce que boo nekkee di góorgóorlu ay ñaar nit ñett ni topp sa a dem ay téeméer nit topp sa ginnaaw kon na ngaa gën a góorgóorlu. waaw loolu la ko demee gën a góorgóorlu daal laa ci xam. soo amoon kàddu yu mujj lan lay doon ñu tàggatoo. waaye sant rek gërëm ñëpp ñu ma doon jàppale ñu waaw parce que marché bi moom taxaw nañ ma wax dëgg yàlla muy góor ak jigéen mag ak ndaw su ma bëggee tudd turu ñëpp rek du ma ko man quoi mais wax dëgg yàlla ku si mel ne ñoom ñii buubu mii ñoom béton ñoom Mbaye Sathiès Mbaye Ngom Alaaji Faye Cheikh Diop Moussa Sène ñoom Mara Ngom bari nañ su ma leen bëggee lim du sot mais ñooñu ñoo ci gën a fës moom wax dëgg jàpp nañ ci affaire bu baax a baax a baax di gërëm tamit sama waa dëkk muy waa Diabel di commune de Colobane aussi ñoom ñëpp taxaw nañ ci jàppale ma ku ci mel ne le directeur général de l'habitat Ousmane Wade dafa jëne xaal bu bëri jox ma defar ay t-shirt Ousmane Wade PNDL noonu kii Amath Diop PNDL noonu dafa jàpp ci combat bi moom sama grand ngañ seen noonu ñëpp daal su ma limee rek dina am ñu ma bàyyi quoi mais sant naa ñëpp gërëm nañ wax dëgg yàlla nañ ma taxawoo ci combat bi waaw di leen wax ne nag ñu waaw buñ kii waaw du yàgg dara dañu amaat beneen combat incha allah. Mm-hmm. di la sant waaw di sant waa Wassare aussi. parce que Ousin yow saa bu ñu la soxlaa rek nga ñëw teew quoi. incha allah moom làmb ngeen fi nekkal wax dëgg a baax di leen gërëm. Mm-hmm. waaw di ñaan affaire bi dem ba gën a yokk doon télévision bu mag a mm-hmm. gis ngeen noonu lay demee di leen jaajëfal bu baax a baax maa ngi nuyu ki nga xamante ne mooy Tafa di encourager Diarra 2 di ko wax ne làmb noonu la na liggéeyaat rek euh, tey ndam la suba defeet gannaaw suba leneen ak leneen ak leneen di ko wax ne na jàpp te bañ a bàyyi Tapha nuyu naa la bu baax a baax di leen jox dig daje ci wasaare làmb waaw sama faat sama coach si Tapha maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax laxaat Dieye Yaxya Ablaye Balde ak ak gawsu gawsu tamit wax dëgg yàlla suñu booy bu baax la lépp lu ñu soxla def si taxaw jàpp si maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di gërëm waa Ramadaan yëpp mbëri yëpp maa leen di sant bu baax a baax di leen gërëm képp kuy takk ngeen mi ko Ramadaan rek dégg naa la sant la bu baax a baax waaw. di leen jox dig daje ba beneen yoon ci wasaare làmb jërë ngeen jëf.